فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. صدق الله. Gannaaw Malika cité Kër Damel Pikine Tali bu mag grande mosquée bu Mermoz bi nga xam ne imaam Jabel Ndiaye moo ko jiite moo doon dalal bésu ba tey jii cérémonie bu présentation ak dédicacu livre bu imam Kanté bii di Mohammed la sceau des profet la part d'Ismaël dans l'histoire de l'alliance abrahamique mi nga xam ne day dikkaat ci jaar-jaaru yonent yi sunu imaam sunu kilifa suñu nijaay sunu sëriñ sunu mag sunu lépp imaam ratib Jabel Njaay ñu ngi lay nuyu di la delloo sa nuyoo di la sant di la gërëm foo sant ak gërëm euh, mën a yem ndax li nga taxawoo diine ci te lii résultat la ci lii danaa ko gën a leeral ba ci kanamee mais damay jox euh, modérateur bi DG Ousmane Cissé mu bismillah Ousmane Cissé auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu jotaay bi ak bi yëpp di jiital ci nuyoo bi ratib sunu kilifa sunu waajur imam Jabel Njaay mu jottali ko ñi fi teew ñëpp ak waa gox bi ñi teew ak ñi teewul ñi di déglu ak ñi di seetaan jamono xam na te am naa ne ñu bari bëggoon nañoo teewee waaye xat-xatu jamono waaye comme que noo koy def en direct am na ñoo xam ne bu jotee lien bi hmm. di ko mën a suivre fan nekk seen teeyu bakkan hmm. di imam Kanté mi nga xam ni moom moo waral jotaay bi mu jaar ci téeréem bi nga xam ni moom la bind ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wane ci wàllu xam-xam ak ci wàllu gëstu li nga xam ni moom mooy jaar-jaar ba livre bi yaakaar naa ni képp koo xam ne jënd nga ko nga lire ko nga ànd ci nga d'accord ak nga ñàkk d'accord yi nga xam ni ci xam-xam la wékku yi nga xam ni ci gistu la wékku ndax imaam Kanté du imaam rek ndax tamit jàng na njàngu tubaab njàngu université dem ba egg ci diplôme yi nga xam ne bokk nañ diplôme yi gën a kawe ci wàllu université Dakar muy environnement dem jàng tamit wàllu diine ci Maroc dem jàngaat xeetu sociologie Mulhouse kon euh, xam na luy gëstu ak xam na ni soo bindee fësal ko ci téere lan moo la ci xaar ci wàllu wax ak ci wàllu critique kon di ko ci suñ ko bàyyee léegi dina waxtaan ak ñi ci téere boobu. Euh, kon euh, ci tomb bu njëkk bi imaam euh, damay njëkk a wax ni téere bi ci ban approche laa ko teg ban manhaj laa bindee téere bi parce que lu nekk am na nu ñu koy tëralee yàlla moo baaxee doomu aadama mu am xel am nu muy tëralee Euh, mala bi dafay xiif lekk euh, tiit daw et cetera doomu aadama day tëral malheureusement nag mën na tëral ci lu baax comme mën na tëral ci lu bon ah, du ma ne sax malheureusement borom bi noonu la bindee doomu aadama ci xikmaam léegi téere bi tam am na nu ma ko tëralee ni ma ko tëralee mi ngi tegu ci ponk yi bu njëkk lu ma tuddee approche fonction des prophètes maanaam wasifatu rusul man côté boobu laay gën a laay gën a jàngatee jaar-jaaru yonent yi kon le côté narratif ak spectaculaire bokk na ci mais gënuma yitteel li ma jublu foofu mooy jaar-jaar yonent yi euh, ni ñu koy nettalee noonu jël aaya yëpp dajale ko boo demee ci Ibn Kasir ak ñeneen noonu la ñuy def nettali jaar-jaar yi ak tamit euh, lu ñuy wax miracle yi mujizaat yi am yonent yàlla Ibrahima sànni nañ ko ci sawara bi deewu fa borom bi ne yaa naaru kuuni bardan wa ala Ibrahim ñuy nettali yooyu am na solo lool. day dëgëral ngëm bien sûr da nga gis loxo borom bi ci biir histoire prophète ni muy intervenir mais en même temps man dama ni euh, am na des fois lu ñuy xaw a fàtte mooy yonent bu nekk lan mooy fonction ci chaîne prophétique bi yonent bu nekk lan mooy place am ak wàccuwaayam ak lu ko lëkkale ak yeneen yonent yi loolu laay wax approche fonction moom laa bindee téere bi te lool dañ ci duggaat légui ci ben point bu may wax ci affaireu u kóllëre boobu alquran tudde al ahd wal misaq dana ci ñëw war na ni kon yonent yëpp ku ci nek da nga am fonction ak borom bi kóllëre bi mu fassanté ak yow mun na ko wax légui sax pour bañ ko faté wa id axasna min annabiyina misaqahum wa minka fof day daw sama yaram imam parce que nu mu waté yenen fof day daw sama yaram da fay daw sama yaram wa id axasna من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وعيسى بن مريم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا قليلا من فاسنتنا كل يونتيب من النبيين يونتيبكم بروم بني فاسنتنا اك نيوم كل ري جيلنت نيوم انغاجمان بمعنى انغاجمان ني ديف فونكسيون بيماي خار تي نيوم با بري مو ne ko minka ak yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga seppiwaat boobu da koy jox beneen fonction particulière ci bir fonction yenen prophète bi c'est très important alcorane numuy waxe il faut nga bàyyi ko xel da koy jox benen martaba mu ne ko wa min nuuxin mu seppi tam nuh yent yàlla nuh danañ ci ñëw legi wa min nuux le prophète Noé le délice de Noé wa Ibrahim wa Moussa wa Isa bni Mariam kon fofu mo indi ulul azmi mina rusul les cinq plus grands prophètes fofu la jógee kon ku ci nek amna fonction particulière par rapport ak yeneen prophète, yi motax borom bi wat len fofu kon war nga gëna xalaat sen fonction particulière lan la kon côté la laa euh téré. muy premier point bi approche fonction deuxième point bi approche damay xool yonent bu nek jamono ju muy dund temporalité personnalité yonent bu ne dafa am personnalité de bokkuñu ay personnalité mais yonent bu nekk personnalité bi mu am dafa dëppoo ak fonction bi mu war a jouer wala bu ne yonent yàlla Yuusufa dafa taaru woon ba nangam nangam mais war nga ko gën a xalaat maanaam taar boobu dafa am fonction du woon rek yonent yàlla Yuusufa dafa taaru woon rek mu jeex taar boobu am na fonction bu mu jouer ak yeneen ak yeneen dong ci nekk war nga ci bàyyi xel seetantal nga gis tamit bërëb bi yonent bi nekk les lieux yonent yi ku ci nekk ak bërëb yi nga nekkoon ak jamono ji nga dund ak les parties prenantes ñan doon jàmmar lool ak yonent yi ku ci nekk am na taxawaay boo amoon am na motivation yoo amoon am na loo doon wax loolu ay génne su ko defee na loolu nekk ñaareelu tomb bi ci approche moo proposé ci livre bi beneen euh, tomb bi mooy la démarche interscripturaire pour bàyyi terme technique bi c'est pas important li am solo rek mooy li mu wund mooy dama def dem ak dikk diggante alquran ak bible diggante alquran ak bible pour set ni alquran indee xissa bi ak ni ko bible indee lan mo ci nuru ak lu ci woro ba pare jëm ko expliquer leader rek ne li dafa nuru li dafa woro du detail de bu alquran indee qissa mu woro ak bible lam wax wala mu nuru amna lu ci ne lo xamne dang ko wara genné en tant que chercheur kenen ko xamne day lire li ma bësal di dem rek man nako def mais en tant que chercheur mom da nga wara taxaw xol lan la

mais est-ce que bu ma demee ci alquran danaa fa fekk lu lu mel noonu comme ñoom ni ñu koy jàngale ma dem set ko ci alquran gis ne effectivement li ñuy wax alliance moom la alquran tuddee al ahd wal misaq bayna allah subhanahu wa taala wa bayna al diggante yàlla ak humanité bi borom bi dafa am kóllëre bu mu fasante ak ñun mais ni ko bible jàngale ni ko nasaraan yi gëmee ni ko yahudi gëmee alquran indeewu ko noonu wala bok amna lu ci bari lo xamni dafa woro ak ni ko alquran indee kon il faut ñu def débat ak le juif ak le chrétien ak la bible à partir du coran ko livre tam fay poser débat bon, un débat intellectuel pas débat génne jaasi ak nangam. jotaay bi mu ngi jeexee ci séance de dédicace su livre bi maanaam képp koo xam ne rek jënd na ko kii di bindkat bi di Imam Kanté am kàddu yoo xam ne bindal na la ko ca ngir feddali kóllëre bi nga séq ak moom.